pays de l'oncle Sam la jógee xoolal jëf kii la wàcc def North Carolina def Times-Square def New York jaar Boston ñëw fii ba pare dellu si Sénégal di xëccoo 2000 francs ak booy yi waaye ma waayow doom la ba Bantamba TV sunu télé boobu yàlla na fi yàgg te wér waaye yéen it jaaraamaa ku am jom am fulla bëgg sa fonk fonk sa liggéey bëgg sa bopp te kenn du lepp kenn déggul si lu ñàkk fayda yaa am jom yaa am fulla ci kaw ci kanam waaye li nga wax ci loolu ci man dafa rëy te damaa kontaan ndax luñ ko waxee noonu la demee. Ah, nan la demee. ni ko waxee. wàcc jëf kee. rek jóge fa def North Carolina. jóge fa dem attention. Mhm. Las Vegas. Las Vegas. ca moo géet mhm. jóge fa ñëw New York ñëpp bëgg ma. man lu ma doon def ci lu baax dama ko war a yokk fii lu fi waaye di jaay lu ab taalibe yàq nga ko ab taalibe rek moo am solo barke Sëriñ Bamba ab taalibe rek moo am solo lu fi waaye jaay lu taalibe wàcc nga ko maa ngi nuy waa Amérique gépp di nuyu sama papa jëppeer baabu papay Balla Gaye ak mère Assou Faye ak sama rakk yu baax ya fa nekk muy Afia Mor Ndiaye ñoom coxo ak Baye Fall bu mag ba muy Mafal ku ñëw jóge fi dem Amérique foo mënta def nga wàcc Mafal ma nga New York 116 xale bu am jom am fulla am fayda liggéey la xam ma faal maa ngi koy ziar di ziar waa waa waa waa waa saa sees gépp tout at sama boy boy Assane ba boy sama sama rakk ja assan ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ak kii euh, booy Ablaye Sarr Ablaye Sarr ñëpp. maa leen Amérique xam nga Amérique gépp Amérique dafay yaatu. non non ñëpp Amérique gépp mënoo leen a lim. Ah, dëgg la dëgg la xam li ma wax mais yow. Hmm. Amérique xam nga li nga tudd Amérique moo tax ma wax la. damaa dem Amérique ñëpp bëgg ma. consul ba ka fa nekkal Macky Sall bëgg ma bëggal ma boppam ak ñoom Penda Guissé ñoom Margot ñoom ñëpp bëggal ma seen bopp xam nga loolu dafa neex. ay dóor la nga non non non yow dan maa bëgg barki dan maa bëgg. ay ba ma doon entraîné moo ko fayal. yow da nga doon entraîné lii. Eh, ma rek ba xam ma. alpha xool de uh-huh. taxaw na su arbitre ne soufflé woon ne tey ba génn sama diggante deux minutes laa may ma duma ko daan ko. waaw da ngay ay xool ma rek tubaarkalla macha allah. Eh, tubaarkalla bàyyi fa allah man dara jombu ma bàyyi liiroo ngi nii réew mi dañ la namm nag. waaw man maa leen gën a namm xam nga ni Sénégal dañ la bëgg. waaw ma xam naa loolu moo tax waruma def erreur man ñëpp mu bëgg kilifa yeeg ñëpp tout moo tax yàlla na sunu yàlla na jàmm yàgg suñu réew Sénégal xanaa xamoo man maa ngi woon Amérique waaye xel mépp mi ngi woon Sénégal billaahi wallaahi taala ndax ñëpp ma doon woo ñibbisil ñibbisil ñibbisil ñibbisil maa sama benn waaye ju nekk euh, Sweden sto Yatabore euh, Lamp Diop lañ koy wax Lamp Diop Yatabore nee na xam na la bu baax ndeysaan Lamp Diop nekk fan Sweden Sweden xam sa ko ne Lamp moo moor eh, sama nijaay la bo Lamp xam naa ko sa ko ne Lamp yee ah, at sama yaay di Adja Gass ca Angleterre maa ngi koy ziar bu wér sama yaay la sama xar la bëgg ma bëgg a at euh, kii nu mu tudd borom Angleterre waaw maa ngi xool caméra bi waaye gis nga daal kontaan naa ci yow ndax tax sa liggéey da am jom am fulla am fayda doo ko caaxaane non non non jayu ma soo defoon leen dama la koy wax nga fekk ñu fii sunu safar gi ñuy liggéeyal Serigne tuuba sama rakk ji muy Balla Gaye 2 di taalibi Serigne Touba taalibi Serigne Bassirou Bara am jom loolu am fulla bëgg boppam kenn yabu ko loo ko naxee ci Serigne Touba yaako moom ci moom ndax dafa bëgg sëriñ Touba xoolal nag yi tubaar kàlla masa tey tëral na ñaar suba mu tëralaat ñaar gannaaw suba mu tëralaat ñaar ba màggale noonu la koy jàpp li ci des mu yenn yóbbu Touba waaye xale bii am jom te bëgg sëriñ Touba li mu bëgg si yoon sëñ Touba yàlla na ko sëñ fay te dina ko ama ndax moo ko fi liggéey ku liggéey nag fayu ku liggéeyul doo fayu dara man maa la wax loolu ku liggéey fay ku liggéeyul doo fayeeku dara waaw yow yàlla na la yàlla dafa jàmm. amiin nu bokk voilà kontaan naa. mbokk yi kooku moom may liru jaan. waaw yow amal jàmm min stadium Iba Mar Diop. waaw jaan min Demba Diop. bilaay walaay xam nga liru jaan min Léopold Sédar Senghor. waaw xam nga fa laa la alagul. waaye arène nationale nationale ay suma duggee arène nationale nga xam lépp dëgg la. jàkkaarloo kan. Moustapha Gueye 2. mais nag. non man laalaake. bi bu dafa gaaw de. xale kooku nekkatul xale. rapidité amatul bëñ vivacité